sëriñ bi mu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na mi ngi delloowaat ab nuyoo sëriñ Abdourahmane Mbacké nee na ak nag mboolem mbokk yi nga àndal yëpp tan di say rak ak ay taalibeem nee na bàyyiwu ci kenn nee na kàddu yi nag daa ànd ak mbégte lool ndax nee na kat fii de sori na ci yow nee na sori gi daa ànd ak mu ñewent la ci lool nee na ñëw gi yëg na ne moom metti na ci moom rawatina nag yow mii nga xam ne yaa jóg déplacé wu te fa nga jóge nag sori na buñ jàpp ne Touba rek la jóge ndakaaru nga jóge ba fii na nga yëg ne daal fépp foo xam ne xol bu sedd ma nga fay àgg rek àgg na fa nee na li muy ñaan nee na yow moom sa pësteef ci sëñ tubaa dara da ko cee umput nee na it àdduna sépp xam nañ ko di la ko seereel xam nañ ne sa xol bépp sëriñ tubaa ci fees kon dañuy ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa ci ni nga xam ne noonu lañ la ko yéenee yàlla nga am ngërëmul sëñ Tuubaa nee na sa jataay bii yàlla na yàgg lool ba li nga bëgg a liggéeyal sa wayjur wa lépp na nga ko àggale ba la la Cheikh Abdoul sa maam ji daan wax naan defatuma fi dara ndax li ma bëggoon a def lépp def naa ko nee na yàlla ngaa ko foofa nee na nag lii muy wax ñëpp la ko yéene du moom dong nee na mboolem ku bokk ci Serigne Touba koo bokkal Serigne Touba yéene na la lii ndax sab xol ak sab taxawaay ak nag sag nangoo topp say kilifa. ndax sa ñaari kilifa yi jëkk a wuutu sëriñ Cheikh muy sëriñ Mbacke soxna Lo ak Cheikh Abdoul Fatah sëriñ mbakke moom sa digg ak moom ñëpp dañ koo xam lu mu mas a def rek yaa cay jiitu ba làq ngërëmam kon sa jataay bii jataayum ngërëm la kon daal ñi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo di ko jaarale ci yow di nuyu sëriñ Omar mii di sarak neena legui la koy togn rek di fàttaliku serigne Aliou ndax digam ak mom neena waxtu ne am xelam day ne ci mom te lol lépp digeunte serigne Cheikh ak Cheikh Abdou Khadir rek ko waral di nuy serigne pap Fall mi di sep talibé diko jëf sant nak ci jëf ji mu jëfal serigne touba bu yagout muy jëf jo xamne ñëpp ñoo ci wara roy ndax alal kat daa taq ci ab xol bu ko neexoon jëme alalam faneen waaye nag nee na nga rafet ci njort te xam ne sëñ Tuubaa moo la dimbaleel boppam rek ndax waxoon na Seex Isaa Jeen na alali dongo yi dee leen xool fi ngeen koy dugal ndax nit kat fu xolam fu alalam jëm xol ba da koy topp kon man nga rafet njort serigne Abdou nee ñi ngi sante bu baax ndax jotaay bi lépp day serigne Touba te bo xasse tuddu nak serigne Touba lépp tàbbi ci bir waye Cheikh mohammed mustafa digam ak Cheikh Abdoul Khadir fani rek neena la koy fatali ci jàkkay serigne Cheikh Abdou Gaynde Fatma ja ndax doomi serigne Touba yi neena mom ñim ci miin. ak ñi nga xam ne fekkewu ci ñoom lu bari ku ci gën a bëgg ci ñoom ñooñu sëñ Mourou Moustapha doo ko mën a xàmmee boo doon natt rek doomi sëñ Tuubaa yi seenug cofeel ci sëñ mu Moustapha nee na mënu koo xam waaye nag damaa jàpp ne sëñ Abdou Khadir la cee jiitu ndax bari na ku mësaa juddu këram bu ko fàttiwul rek bu dee taalibe dana na ab taaw daal Mourou Moustapha rek la war a tudd bëggoon ko lool دانا وحني سين مود مصطفى تي انجل بنم دا دان سقال كوارغي غير موريتاغا موي نجان لي ني ديغ رك كون تود نيان كو نجان واي نينا سين توبا كوتري نكو ياو كات نغا خامني سنة لن لا تانال سين عبد القادر نك دا دان وخنان لولي مو وخون مود مصطفى من ميدي عبد القادر تابي والنا بير bëggoon ko nag lool ba bëgg gi àgg ci ëpp waxtu wu ne muy waxtaane sëñ Mourou Moustapha sëñ Abdou Khadir it amoon ci moom yéene ni mu ko defee nag ci waa kër sëñ Touba ñëpp fee mu dëkk fa mu njëkk a dëkk ci Gede sëriñ du mu Moustapha moo ko defar ba mu àgg ñaanoon na sax sëñ Mbacke Bousso ne ko damaa bëgg nga jox ma sëñ Abdou Khadir ma yóbbu ko ci tund yi fenn boole koog taalibe ya kon daal sëñ Mourou Moustapha wàccoo na ak njabootu sëñ Touba gépp Cheikh Abdoul Ahad noon la ko defal ci kàbb sëñ Saliou boo demee Xabaan moom daal njabootu sëñ Touba gépp noonu la leen taxawoo moo tax nag ñoom it ñu delloo ko bëgg ko lool Cheikh Abdoul Ahad moom da daan wax ne sama doxin daal sëñ Mourou Moustapha rek laa ci roy sëriñ Souhaïbou dégg naa ci aw làmmiñam tabax boobee mu doon tabaxal sëñ Abdou Khadir ci mujj gi. booba ci laa dégg muy nettali. mu ne aw tabax yi ndey sëñ Moudou Moustapha laa ciy roy. ndax booba jamono ji melagut nii. da daan wax tabax bi ni muy nekk ci digg kees gi. ak ni ko kees yi wëree. sama tabax bi sax. bi ma toogee ci mbaar mi ci ginnaaw. damay wax na ku fi dugg rek sam xel dana dem keur seigne jean Souhaïbou lolu ab yar mokoy def ci do madama te lolu ci lamiñu làmmiñu sëñ Souhaïbou la ko namo kon ñom fofu lañ nekkon ci seigne Mourou moussa yàlla def na digam ak seigne Cheikh Ahmadou mbake yaakaar naa nak seigne Cheikh fim agon ak seigne Abdou Khadir domi seigne Touba yep la fonkon waye nak fim mu àgg ak sëñ Abdou Khadir jot naa àggu fa kenn ndax dégg naa ci sëñ Saliou mu sëñ Mourou Moussa. mu nettali ci loo xam ne. mu nettali ci loo xam ne. booba man ak sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir. ak sëñ Fallou moom sëñ Sohaybou. ñoo ko fekkee ak ñeneen. ci fonk goo xam ne Serigne Cheikh fonkoon na ko sëñ Abdou Khadir. ba àgg ci loo xam ne neexut wax ci ab rajo. sëñ Abdou Khadir nag li may junj xam na ko. xam na lépp. xam na diggante sëñ Cheikh ak sëñ Abdou Khadir. mboolem jàllabi yi mu daan sol. mboolem jàllabi yi sëñ Abdou Khadir daan sol. ndax booba jamono melagut nii. booba sëñ Cheikh rek a fi daan tukki daanaka. waaye wëlis ay wëlis la ko daan jox. waaye ay wëlis yi jàllabi la daan andi. tabax bee sëñ Abdou Khadir tabax ca këram. tabax bee sëñ Abdou Khadir tabax ca këram. booba ci ab tabaxub deux pièces bu ndaw la dëkkoon. sëñ Cheikh a defar plan bi. sëñ Cheikh a defar plan bi. andi ka koy tabax. kon seen diggante ñoom ñaar lu yàgg la. sëñ Abdou Khadir saa yu masaa dem Dakar. Mm. diirub sëñ Seex di fa ne. diirub sëriñ Seex di fa ne. musta dal fenn furut kër sëñ Seex. ni ko ba Bas ñaan mi waxe léegi. noonu rek la demee. sëriñ Seex it fomb na ab tukkeem. ngir sëriñ Abdou Khadir. sëriñ Abdou Omar mi xam na néeg sëñ ba. néeg sëñ Abdou Khadir ba kon loolu. daanaka mënoon nañoo yendu ci seen diggante ci luñ ci mën a wax ci loo xam ne moom àdduna bépp a ko xam ci fonk gu ko sëñ Seex fonk ak doyloo gu ko sëñ Abdou Xaadir doyloo moo dem nag ba andi digganteem ak sëñ Mbàkke Soxna Lo maa ngi koy nettali keroog ba may ñëw fii bi may tolloo kër gi may waat loo xam ne Serigne Salihu moom sëñ euh, ambassadeur moo ma ko nettali woon. sëñ Mbàkke sax ba ma ko njëkkee gis tudd na ma loola. waaye euh, la ci sëñ Salihu nettali daa wax ne. sëñ Mbàkke da ko ne. sëñ Abdou Khadir kat dafay bëgg ñëw. waaye damaa wax ne ma. yoon wa Cheikh Moustapha daan jaar. moom laa bëgg ñu xalaatal ma ko. sëñ Mbàkke di ko defaral ab tabax far sëñ Abdou Xaadir jóge fi ci diggante bi sëñ Mbàkke nag wax sëñ Saal na ko lu ma musta dal moo ma dal ci demuk sëñ Abdou Xaadir gi mooy jooy ku fi jóge ne ko damaa dem sax ba wéet di yedd sama bopp ndax sëriñ Cheikh mii sama waajur kat jooyu ma ko waaye yéene ji ma amoon sëñ Abdou Xaadir dama bëggoon bu tabax bi àggee ma woote nag képp koo xam ne maay sa jëwriñ ci yoon wi ci réew mi ma fab lépp te ko ci loxol sëñ Abdou Khadir te loolu mosuma koo def na ko sama yoon jooju àggut nag moo ma naqari kon loolu moo andi suñ diggante sa ak sëñ Abdourahmane sëñ Abdourahmane mii nag nee na mu bëgg a seeral ak cantam ci eh, moom nee na ni ma ko bëgg a sante sama làmmiñ lott na ci wax ko ndax kàddu yi rafetal rek du kàddu yi rafetal waaye nag day jëf joo xam ne daa dox suñ diggante ndax day mel ne cofeel gu sëñ cheikh amoon ci sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Rahman mii am na ci cheikh Mahamadul Basir cofeel gu ko ëpp mbooleem ku jege sëñ Abdou Rahman te xam ko xam nga loolu amut ci moom sago bëggut a dégg ci moom dara lu weesu jàmm lépp lu mu jàpp ne luy defar mbirum sëñ Basiiru la du ko ca xaar te du soxla it ma yëg ko dem naa ba genn kilifa gu mag dem naa ba ci genn kilifa gu mag ma jot ko téléphone mosuma koo gis ma jot ko téléphone waaye mosuma koo gis mu ne ma sëñ Abdourahmane de mu ne ma sëñ Abdourahmane de na nga ko fonk bu baax ko jàpp baax te fonk ndax ñëw na ba fii ci man ndax ñëw na ba fii ci man day sama kóllëre ndax day sama wëllëre na ko sëñ Basiiru moom sëñ Abdou Xaadir laa bëgg nga ñaanal ko te kooku bu ma ko tuddoon ñëpp xam ko te sëñ Abdourahmane mii waxuma loola yàllaa dem rek may def ba daje kooku ci téléphone mu nettali ma loolu te loolu kenn mënu koo fay rakkam yëpp itam rakkam yëpp itam mu leen di soññ mu leen di soññ di leen jox ndigal ñuy ànd ak moom ci liggéey bi kon daal deseelu ko dara lu dul ak ñaan ndax cant gi moom làmmiñ wi lott na ci wax ko xana di la ñaanal ci barkeb sëñ Tuba yàlla na la sëñ Tuba fayal bopam te nangul la sa jëf te mottali sa yene di nuyu ñi fi tew ñep sa doom sëriñ saliw ma ngi lay seereel ab taxawayam ci man ndax yone na fi jëf ju bare bare ba te tay ji mi ngi ni tok xamna naa loole da ko don ci yéen rek ak wajuram muy tab gi ak yene ju yaatu ji sa yab laxaat ka mii ni ma ko waxe woon ci biir rek sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yàgg na ci la ko boolee ak moom ndigal lam ko joxoon it yaakaar naa ne boobaag léegi ëpp na fukki at ak juróom lam ko waxoon mooy lépp loo xam ne Basiiru wax na la ko jërut nga di ma ci tàggu jërul nga di ko yëgal lépp lu mu la wax rek na nga ko def loolu yàgg na fukki at ak juróom jàpp juróom benn mat na ko 2008 la woon ba nëgëni booba ba nëgëni nag mi ngi lay seeral ne mi ngi koy sàmm 2016 kendal googu ko sëñ Sidi di ganale ci këram at mu jot ba takkusaan jotee da ko woo woo ko jël loxom jël loxom bo téye. daanaka boole googu yéen laay yeesalaat. daal di ko ne boole googu ma leen waxan nag laay yeesalaat tey jii. ndax man lépp lu ma dama naan man kat sama mbir amut luy nëbbutu lu ma nekk dama naan ca fang. moo tax lépp lu ma la ko digale woon. moo tax lépp lu ma la ko digale woon. lépp lu la wax. lépp lu la sëñ Basiir wax. jërul nga di ma ko yëgal. jërul nga di ko yëgal. jërul nga di ma ca nga di ma ca tàggu. noonu rek la koy defee Mbàkke. sëñ Sooy bu Siise mii moom sëñ Mor Mbay Siise moom itam yàlla def na waaye juram ni mu demee ci yoon wi ñëpp xam nañ ko waaye ci jamonoy Serigne Saliou it muy hmm? wëllëree mu yàgg mu sàmm ko ba nëgëni maa ngi fàttaliku ajjuma ji sëñ Serigne Saliou bàyyi ko ca alxames di ko jëkk muy ca demb sa rek ma jot ko téléphone nee na moom Serigne son bi mii moo ko mujj jot li wooteeb Serigne Saliou ne ko sëriñ Saaliw de yónni woon na laat gay ci yow démb ci àllarba ji mu di la woolu far fekk nga nekk ndakaaru daanaka bi may agsi ak bi sëñ bi demee ëppul juróom-benn waxtu kon këllëre googee daal laay sàmm sama digg ak moom ba na gëni nee na mi ngi sant ñëpp ndax jotaay bi yàgg na di nuyu sëñ Moustapha mbay sama nijaay galo bokk ci magi murid <laughs> bokk ci mag yi ku ne fas ku am sa xarit nga fasal. ku ne fas ku mu ne nga ñaan mu ne nga ñaan. la nee na ñaan ñaanal jërëjëf euh, mbokk yi kon bis baa ngi di bisu ngan gi nga xam ni Cheikh Abdou Rahman Mbacké moom sëriñ si Ahmadou Mbacké gane si woon na ko Cheikh Mahamadoul Bachir fii ci tool yi bis bi mi ngi yemook nag euh, samedi 17 euh, février ci atum 2024 ñuy sant bu baax Cheikh Abdou Rahman Mbacké santit Cheikh Mahamadoul Bachir ñaan suñu borom yàggal leen fi te may leen wér ak mbooleem donga yépp ci barke Seexul Xaddiim jërë ngeen jëf